kar yooyu itam amaat na nu mbégte lool dalal la ci Sen TV rawatina émission bi di Sen Show. maa ngi lay fay di am mbégte également ñëwaat seen plateau seen Show jàkkaarloog sama grande royale yi <laughs> mes deux grande dames comme la l'habitude de le dire. Ah, et également jàkkaarloog yow euh, Mohamed. Ah. amaat mbégte daal ñëwaat. très bien merci téléspectateurs yi également. merci du ma ci wet benn yoon daa ci ànd ak euh, Ndeye Dimet Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye léegi léegi ñu tàbbi ci waxtaan bi. alors euh, kon xibaar bi mi ngi noonu Malick Fall ñu tàmbalee waxtaan bi ak yow muy université bi nga xamante ne ni wala yi nga xamante ne ni mbas mi tàbb na faa dugg euh, nga jiite euh, SAES alors jàngat bu njëkk ci ba ngeen déggee ne léegi université yi ñu ngi tàmbalee di am ay cas de contamination ci jamono ji nga xamante ni saa yu ñu xëyee ñu ngi wax ne mbas mi ngi gën a yokk. waaw mais jërëjëf sëñ bi ci invitation bi ñuy wax rek ni loolu warul nekk mbetteel. Mhm. ci ndax euh, université du benn ilo ci biir Sénégal. parfait université dafa nekk euh, benn euh, structure boo xam ne dafa bokk ci biir réew mi ña fa nekk di ay jàngalekat dëkk ci biir réew mi ña fay liggéey di personnel administratif dëkk ci biir réew mi étudiants ya fa nekk dëkk ci biir réew mi. mu nekk benn cadre boo xamee ni bu dee da nga jël université bu Dakar kese daanakul mat juróom-ñett fukki junni ndongo ñoo fa. boo ci boolee lu tolloog junni ak ñetti téeméeri jàpp ñeenti téeméeri jàngalekat ak junni ak euh, ñetti téeméeri personnel administratif ak ñeneen ñoo xam ne dañuy gravité autour donc euh, dafa nekk zone boo xamee nii euh, c'est une zone bu vraie fréquentation mais dëkkuwaay également kooku du secret ñëpp xam nañ ni dëkkuwaay jaay doyul donc bu fekkee na nga jël boo xayma à peu près ñi war a mën a dëkk ci biir université bi daanaka matuñu ñetti ñetti junni. absolument ñetti junni. Mm. mais ñooñu dañuy génn. di jël transport bi di dem ci biir dëkk yi. mais jàngalekat yi également di dem ci yeneen établissement yi ñuy jëflante suñu biir. donc forcément yaakaar ni université dafa war a nekk îlot boo xam ne du am. Euh, très bien fa dugg lu jafeñ a yaatal ak dañuy bàyyi Fatou Abdou Ndiaye mu wéyal ak yow waxtaan bi ginnaaw bañ ko nuyoo. maa lay fay Mouhamed di nuyu Ndeye Timet nuyu également monsieur Fall ak Babacar am mbégte daal ci plateau bi alors monsieur Fall est-ce que mënuñu am les chiffres exacts puisque dégg na ay cas dégg université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru euh, ancienne ENSUP lan lañ ci mën jàpp ci ñoo xamante ne am nañu feer bi tey alors du ñu aventure wu di joxe ay nombre chiffres parce que feebar dafa xaw nekk lu lu lu lu xaw personnel également ñu am également ay responsabilités yoo xam dafa gàllu ci suñu loos te responsabilité yooyu gàllu suñu loos euh, permettre ñu ñun ñuy wax loo xamee ni ëllëg ak si bi ko génnewee mën na am ñu mu tiital wala mu am leneen loo xamee ni la mu yàq moo ëpp la mu war a defar li ñu mën a wax rek mooy euh, mbas mi ndax mi ngi ci biir université yi Euh, situation la boo xam ne ñoo ngi koy gérer depuis depuis ay ay ay jamono ngi ne muy université Gaston Berger de Saint-Louis. ay jamono cest à muy mais c'est-à-dire que c'est pas quelque chose boo xam ne du démb la fi xew. Mm-hmm. donc du démb la am donc. xam xam nañu ni ci biir euh, personnel administratif yi am na ñoo xamee ne am nañ koo xamoon nañu ni également ci biir jàngalekat yi am nañu ko ci am loolu du secret maanaam euh, du lu bees. naa le problème qui se pose mooy euh, dafa am niveau de responsabilité yoo xam ne boo ci tolloo euh, am na yoo xam ne boo koy gérer da nga koy gérer ci ci dal. jëre ko également ci responsabilité euh, pour que euh, ñi nga ko seqal nga bañ fa indi loo xamee ni mën na indi jaxasoo donc. alors dañu gis ne le protocole sanitaire ci école yi communication bi bëri na lu ñu koy tudd le ministre lui-même mais est-ce que université université yu yu jàng këru jàngu kawe yi le protocole sanitaire et respecté là-bas. waaw xam nga ci biir université yi yaakaar naa ñun ñoo jëkk a créé ce que l'on appelle donc des comités de santé. parce que quand même il faut pas oublier que université lañ nekk. te université boo jël ci Sénégal am na faculté de médecine daana ko. Ah. soo jëlee Dakar am na faculté de médecine Ndar am na ko Thiès am na ko Ziguinchor am na ko Bambey am na benn euh, embryon bu bu fa nekk donc amul benn université daana ko boo xamee ni euh, amul euh, ay jàngalekat yoo xamee ni ci wàllu médecine la ñu liggéey soo jëlee université El Hadj Ibrahima bu Kaolack ki ko jiite c'est professeur le virologue la ci biir université yi. mettroon nañu en place des comités de santé. yoo xamee ni war nañu liggéey. mais le problème qui se mooy comme ni ma ko expliqué léegi dañu nekk ci benn zone boo xamee ni surface bi dafa xaw euh, tuuti. la nekk ci noonu àll ma bari. loolu moo indi woon bu ngeen fàttali ko bu baax ba ñuy reprendre euh, jàng bi ñu ne woon nañ ko def de façon graduée maanaam ñu indi euh, benn pàcc ñu ñëw jàng. bu ñu jeexalee ñëw ñu dem ñu indiwaat ñeneen ñoo ñu jàng bu ñu jeexalee ainsi de suite donc on a essayé de faire euh, une reprise graduée mm-hmm. mais nag reprise graduée boobu même bu ñu ko defee du tee euh, pàcc bii ñëw di jàng mm-hmm. day bari te euh, ci biir saal yi. Euh, loolu problème bi foofu la nekk. mooy euh, saal yi est-ce que mën nañu respecter cette distanciation physique bi ñuy wax ak ndax étudiants étudiants yi également nangu nañu respecter. Eh gestes barrières yi ñu wax mooy nga takk sa masque te te say gel. loolu <laughs> ça ça reste à voir. man su ma man dama lay jox exemple sama cas. su ma demee par exemple dugg saal. Hmm. bëgg def cours. Hmm. bu ma génnee sama gel commencé. Euh, désinfecté ak yooyu raxas micro bi. rek man je suis obligé waroon nañu ñoom sax waroon nañu conscient que ne loolu lu war la Ndeye Dimbé Ndao. Euh, Mouhamed ma lay nuyu. ñu lay fay Fatou Abdou di nuyu suñu gan professeur Malick Sall di nuyu tamit bu baax a baax suñu grand alors ci grand lay dooree euh, tey gis nañu ne virus bi finalement law na fépp ci Sénégal parce que gis nañu mi ngi ci école yi mi ngi ci université yi mi ngi sax ci tribunaux yi ndax euh, am na dem benn kaabu bu metti bu am fële ca tribunal ci benn avocat bu doon plaidoyer pare daal di daanu donte nag euh, kenn waxul ni Covid bi la mhm. bien entendu alors tey aujourd'hui seconde vague bi ni mu ñëwee di faat lu bari nan nga gisee stratégie de riposte bi nga xamante ne ni nguur gi teg na ko ah merci Ndeye vraiment <clears throat> li xew moom tiital na ñëpp. waaw vraiment kenn euh, warul mën a xeeb empleur bi nga xam ni feebar bi jël na ko. mais gis nga exemple bi euh, euh, monsieur Malick Fall wax léegi Malick Fall la. Mm-hmm. Malick li mu wax léegi. ak li nga gis tribunal parce que avant maître Bokar Diallo boobu. Mm-hmm. je crois que am na le cas de maître Babou. tout li mu expliqué mais vraiment c'était patent. Mm-hmm. moom nee na mi ngi tribunal. dans une audience benn waay mi ngi sëqat à côté de lui ba mu soupçonné kat kii dafa am symptôme feebar bi mhm. ba nee na mu dem si président tribunal bi wax ko ko mhm. ne ko kii il faut te moom takk na masque mais teewul dafa génn foofu rek daal di jàpp feebar mhm. donc ça veut dire quoi li xew université il est vrai que am na relâchement bu grave parce que université également dañu bàyyi étudiants yi du ñu takk masque seetaan naa benn reportage sur une chaîne de télévision benn xale di wax ni moom lu takk masque voilà te alors que lu ñu bëri bëri quand je crois que c'est un cadre organisé war na mën a teg loo xam ni exigeant pour étudiants di takk masque loolu dafa war a mën a nekk beneen bi professeur Aliou Sow politique ah ancien ministre def na benn contribution yàggul di wax dans les amphithéâtres comment les étudiants se comportent ah dañoo takk masque def dara maanaam je crois que relâchement état am na lu mu war a def mais dans un premier temps aussi je crois que la communauté ah nga xam ni foofu c'est un milieu intellectuel jàng nañu wax ak ñoom moo gën a yomb que feneen bu ñu organiser foofu donc feebar bi nécessairement day lal day day law parce que dans les établissements publics surtout euh, préscolaire ak même élémentaire mais quatre-vingt-dix élèves potache par classe justement euh, docteur euh, mi ngi koy wax léegi professeur mi ngi koy wax léegi que ni université comme yeneen lieu la mais nan lañ mën a comprendre fu mel ni université Cheikh Anta Diop nga xam ni niveau peut-être de compréhension bi dafay dafay kawe ñuy seetaan ba deuxième vague bi mu songu leen fa li mu wax c'est un facteur c'est vrai mhm. téeméeri nit. presque li mu wax parce que c'est ñaata personnes mm. li mu fi mm. ah, dans un espace assez réduit. Mm. chambre yi wax na si ça c'est des faits. mais je crois que au-delà de l'université boo jàngat loolu dafa am loo xam dafa des. sensibilisation bi bu amee it maanaam sénégalais yi jëluñu feebar bi jël ko pour ñoom. loolu je crois que gis nga première vague bi. ça c'est un problème. ñoom xamoon nañ ni problème bi foofu la nekk. moo tax gis nga toujours je dis que man couvre-feu bi je crois que c'est pas la solution. parce que yii nga feebar fi muy law yëpp journée bi la. Mhm. dans les cars wax na ko léegi bu étudiants yi wàccee dem journée bi ça veut dire quoi. école dire école. c'est vrai dans les marchés. tout à fait dans les lieux de travail. journée bi la. Mhm. te jëluñu mesures yu ñu war a jël dans la journée pour faagaagal feebar bi ba pare nag je crois que toutes les mesures énergie gi ñu jël guddi gi la. Mhm. moo tax ma ni kenn newul couvre-feu baaxul wala yooyu mais en tout cas impact bi ñuy xalaat. pour arrêter feebar bi nekkul ci couvre-feu nekkul ci guddi nañu utiliser les moyens yu ñu jox armée yi nga xam ni guddi gi nécessairement il dégage des moyens pour que ñu def seen liggéey la police et tout ça nañ ko investir dans la journée ñu gën a sensibiliser wax naa ni ñiy joxe information bi nañu ut ñoo xam ni seen message day jàll ci nit ñi sénégalais yi mais tëb rek chaque matin di joxe ay chiffres loolu je crois que taxul sénégal yi mën nañoo ragal tiit mais xamuñu nu ñu mën a def pour moytu feebar bi. c'est là où est gis nga ni ñoom autorité yi jël nañ une disposition pour faire face à la seconde vague. non pour pour dire vrai pour gisaguma. ampleur bi mu jël comme première vague bi au niveau des communautés xam nga heureusement boobu dafa tombé woon nag ñuy joxe ceeb quoi pour sama mbokk sama mbokku boobu dafa fekk donc nit ñi xam nga yaa ngi joxe dund rek kit alimentaire ñëpp dañuy dañuy def attention si lool donc possibilité la pour nga sensibiliser leen c'est facile même si bu fekkoon desoon na feebar bi foofu la ko nit ñi gënoon a sentir mais dañuy dégg deuxième vague rek feebar bi bëri na mais les les Sénégalais sont désemparés c' est que maanaam waxuñu leen ban yoon la ñu mën a jël lële amoon na sensibiliser nañ leen nañu delluwaat sensibiliser leen nañu dem au niveau des communautés au niveau peut-être des collectivités territoriales maanaam sensibilisation wàcc ñu dégager les moyens ñu dégager les moyens parce que deuxième vague bi wax nañ ni ñëw na mais est ce qu' on a dégagé les moyens qu'il faut apparemment non. d'accord ça veut que justement sax ñu ngi wax ni euh, ci wewu bay lañ ko foree que ni ñi nekk ministère de la santé ngi demandé président mu defal leen rallonge budgétaire mais dafa bañ. mais te te nekkatul rek ministère de la santé gis nga l'affaire ça dépasse quand même le du ministère de la santé xam nga lii ñu wax yëpp pour sensibiliser c'est pas le ministère de la santé mhm. c'est que loolu communauté yi la ah le ministère de l'intérieur d'autres ministères le ministère du transport mhm. ñoo ñëpp dañ leen a war a boole pour xool naka la communauté bi ñu engagé wu bu jaree nag mhm. ñu tëj leen benn moment boo xam ni semaine parce que aujourd'hui couvre bi mais ils sont en train de tuer le petit commerce mhm. te man gisuma impact bi mhm. parce que dama lay wax dans les dans les grandes surfaces ils te disent que aujourd'hui seeni euh, seeni commande dafa wàññeeku maanaam nit ñi jëndatuñu muy tout ce qui alimentation muy poulet viande et tout parce que ñoo ñooñu restauration yi les sénégalais yi nga xam ni seen restaurant à partir de dix neuf heures lay commencé fonctionner. Mm. ça veut dire que dootuñu jënd. parce que guddi gi xale yi doon ñëw di jënd si ils préfèrent toog seen kër lekk cereeb meew wala mburoog soow que vraiment di génn di jënd di jënd si restaurant yi. Fatou Abdou bu fekkee am na ah, question alors euh, ah, peut-être ñu dem ci Malick euh, monsieur Fall euh, deuxième vague bi ak première vague bi bu ñu ko dee comparé ban moo ci ëpp ñi nga xam ne am nañu Covid 19 dans les universités sénégalaises. waaw xam Mm, faatu da ngay da nga da question bi. Mhm. pour euh, ñu joxe chiffre. pas de chiffre mais justement boo ñu dee comparer. je veux dire. Euh, joxe chiffre. xam nga euh, ñëpp gis nañu première vague bi mu doxee. Mhm. lii suma naataangoo bi di wax ci wàllu communication bi dafa am solo. mais deuxième vague bi effectivement gis nañu ni moo gën a virulente gis nañu ni moo ëpp ay cas gis nañu moo ëpp décès mais le problème qui se pose euh, soxna yi mhm. euh, dafa am lu am solo xam nga dafa am niveau de responsabilité il faut ñu di ko situer mhm. dafa am loo xam ne état moo ko moom maam orientation yeeg euh, mettre les moyens ak yooyu mais dafa am leneen loo xam ne c'est à un niveau mhm. loo xam ne nit ku nekk absolument yow yaa war a xoolal sa bopp xam ni lii ñuy wax ndax yenu na maanaam wala yenuwul maanaam te loolu foofu de mon point de vue ci sama xalaat bu gàtt sensibilisation bi foofu la war a nekk parce que sensibilisation nag du da ngay ñëw toog parce que dafa am nit ñoo xamee ni ñoom la yàlla jox cër pour ñu leen di déglu am ñoo xamee ni ñoom la yàlla may wax kàddu ñooñu nag la war a identifier ci Sénégal mettre leen au devant de la scène parce que dafa am ñaari communication dafa am la communication communautaire c'est-à-dire que de la communauté ñu am ay relais ni doon wutee ay bàjjenu gox di ko wutee ay nijaay gox di ko wutee ay imam wutee ko ay chef de quartier. ñu impliqué leen. Mm-hmm. noonu la ñu war a xoolee également ci kaw. ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi. parce que foofu la wax ji yëpp nekk. mais kilifa diine yi quand nañu seen rôle. parce que li ñu waroon def def nañu ko. non kii xalif koy joxe na exemple. xam nga su fekkee ni euh, ci parce que comme tout est une question de communication. Mhm. parce que mën nga wax ni man. joxe naa ndigal wala joxe naa exemple maa ngi takk sama masque. Mhm. mais su fekkee ni ci biir dafa am ñeneen ñoo xam ne dañoo euh, dañoo gëm ni ñoom. Euh, mbir mi am na leneen loo xam ne war na ko mën a saafara. Mm-hmm. ñu boole ko ak communication boobu. Mm-hmm. day indi problème. c'est-à-dire il faut que kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi ci wàllu diine. ñu mën jël seen. mais lan moo ci responsabilité les autorités universitaires parce que sànq Babacar mi ngi koy wax euh, université en fii donc ñëpp xam nañ ne salle la nombre bu bari lay doon mais loo xam ne war nañu ko mën a canaliser bokkul ak ñuy dox ci mbedd wala ñu nekk ci oto lan moo ci seen. responsabilité loolu mooy responsabilité mooy li ñu jëkkoon wax bi ñuy reprendre dañu ni mënuñu indeendu quatre-vingt mille étudiants yëpp par exemple Dakar ñëpp ñëwandoo. parce que dañu wax ni quatre-vingt mille étudiants xajul ci biir maanaam dans un contexte de pandémie comme ça xajul ñun ñëpp mënuñoo ñu moo tax ñu indi woon système rentrée graduelle mais rentrée graduelle boobu bi ñu ko defee mais am na ci ay universités yoo xam ne ndongo yi nangoo ñu ko am na ci ay universités yoo xamee ni euh, on a dû batailler ferme avec les étudiants pour expliquer leen ne leen lii booy li gën parce que quand même ay jàngalekat la ñu ay scientifique la ñu ñun ñu ay jaayil donc am na loo xamee ni ñun prévoir nañu ko ba xam ni lii ak lii mooy ami mais mais Babacar bu bu ñu déggee nii est-ce que dafay dafay indi peut-être ñàkk pouvoir bu sunu yenn autorité yi ah, am ci li nga xamante ne moom moo jël ci yenn décision yi nga xam ne dañu koy faral di jël. c'est vrai que moom am na benn pàcc boo xam ni peut-être que foofu la mën a yem. Mhm. mais responsabilité aussi am na fu mu yeggaat si au niveau de l'université si voilà je que il faut que il faut que parce que mais yi yéenay xool li leen di arranger wala li mu mën a demee pour que mënuñu imposer ne dañuy jàng par force alors que les conditions ne sont pas réunies man li ma gis mooy que mais pourquoi pourquoi njiitu université bi jëlul responsabilité ne serait-ce que euh, mu wax accès supérieur ñu tëj ko pour une période pour inciter les les dugg ku takkul masque bu mu dugg. Mhm. kooku kooku responsabilité jàngalekat la. waaw jàngalekat. moo am responsabilité est-ce que dina yomb parce que yaa ngi dugg di jàngale di di di désinfecté ñu lay ree. loolu kay loolu xam nga loolu moom ci kii mais je veux dire. Hmm. dafa am loo xamee nii. non je veux dire étudiants yooyu waroon nañ leen mën a conscientiser ba aujourd'hui ñoom sax ñu doon ay relais. pour gën a mën a sensibiliser parce que tamit c'est des universitaires nday dimen mi ngi koy wax sànq ay universitaires lañ le niveau boobu ñoom itam ñu ci suñu waxtaan loolu mooy approche communautaire sax nag gis nga loolu dafa bokk ci suñu waxtaan au delà même de de la question de la covid 19 mhm. man boobu ñooy fekk ma sama su may wax ak étudiants yi dama leen wax bis fu nekk ne leen vous êtes tous ressortissants de vous êtes tous des étudiants ressortissants d'une communauté donc communauté boobu ngeen bokk yéen yéen a war a sol seen daal nekk fërale pour wax leen ne leen par exemple wàllu suuf si suuf kenn du ko jaay. Mm. suuf dañ koy luye wala ñu abale ko mais kenn du ko jaay que nii ak nii ak nii. yooyu dafa bokk ci suñu discours ak ñoom. mais euh, ce que je veux dire euh, na euh, relâchement bi. c' est un relâchement national. Mm-hmm. nit ñi seen bopp sénégalais. Mm-hmm. yàlla nag moo ñu bindee ñun sénégalais am benn nu ñu yàlla bindee. ci xaw dëgër bopp tuuti ci xaw nangu autorité ci xaw nangu kii quoi bañ a nangu mm-hmm. autorité ainsi de suite nekk des gens yoo xam ne dañu xaw nangu dañu bëgg nekk tuuti toujours ay rebelle def tuuti rébellion kooku c'est c'est c'est c'est inné mm-hmm. c'est quelque chose qui est inné au Sénégal maintenant professeur euh, bu ñu déggoo étudiants yi nekk Gaston Berger wax ni ñoom bëgguñu def les cours en ligne mu am ñu nekk Dakar école supérieure ni ñoom d' accord nañu situation boobu man bëggoon naa ci xam euh, position sais yaa ngi doog xam nga yaa ngi dugg ci benn beneen euh, maanaam exemple la woon la difficulté qu'il a parce que on gère l'université c'est trois communautés c' est y la communauté enseignante am communauté administrative am communauté étudiante étudiants yi dañu nekk ci benn maanaam ci benn euh, jamono joo xam looy def fook nga bokk ko ak ñoom foog nga waxtaanee ko ak ñoom. te su fekkee ni ñoom d'accorduñu ci lenn li dafay xaw jafeñ tuuti pour que nga mën ko appliquer ñu ngi ko bëgg a appliquer donc dafa laaj ay waxtaan yu bare bare bare cours en ligne. ñun suñ bopp SAES e ñun ñoo jëkk wax ni kenn du tëb tëb rek improviser situation nag am na muy situation bi am na jafeñ jafeñ yu am ci ci dëkk bi pour le moment de façon palliative. ñoo ngi jéem a xool ndax njàngale ci xajale ko ci xalal yi. Mm-hmm. mën na wàññi. mais lan mooy problème bi parce que que tey jii feebar bi am na fi. cours en ligne moo moo fi sës et puis sax euh, day wone li Mary Teuw Niane il il avait raison bi mu commencé di jël euh, université virtuelle di ko def donte boobu bu boobaa euh, ci ci jamono jooju jàngalekat yu bari nekk université d'accord ñu woon ak moom. xam nga université UVS ci ñun lañ bokk. section foofu benn syndicat rek moo fa am muy SAES. E donc donc ñun très tôt. Euh, xam nañu ni euh, am na loo xam ne ñu bokk ak ñoom mais bari woon na coow ci parce que commencement bi ni ñu tëdd tëggalee woon maanaam ni ñu tëggee woon njàngale virtuel. ci ci UVS mm-hmm. bokkul ak ak ni ñu ko doxalee léegi. ñun ci suñu remarque ak suñu waxtaan moo tax ñu xaw changé lu bari ba mu am benn parti boo xam ne presque en présentiel mais li ma bëgg wax mooy xam nga njàngale mu jaarale ko ci xarala yi dafa am yu mu laaj li mu laaj mooy dafa am disposition boo xam ne foog nga jël ko benn mooy une disposition réglementaire parce que tamit université ay taxes ñoo ko régir te bugguñu tamit nekk ay jàngalekat nekk ay intellectuel ba pare di jalgati mm. donc ay textes ñoo ko régir donc textes yooyu ko régir il faut que ñu xoolaat ko ba mën ko méngalewaat ak situation bi ñuy dund muy njàngale ma xam dafa war a aw ci xaral yi benn deuxième chose mooy dafa am plateforme parce que njàngale dafa am fu ñu koy teg plateforme bi il faut ñu xam une plateforme boo xamee ni euh, accessible na ci ñëpp même bu ñu koy partitionné ñu xam ni ñii lañ ko tëralee ba nga xam ne ku ci bëgg dugg di nga ci mën a dugg ni mu waree mu laaj également dëkk yi nga xamee ni fa la xale yi di nekk mu am accès à l'énergie ak xëy na Sénégal gàcce la. mais virus bi en deux mille vingt et un mais virus bi professeur virus bi moorul xaar. waaw mais xam ngeen da ngeen da ngeen waxtaan mais virus moorul xaar. mais looloo tax mën la de façon palliative actuellement li ñu mettre en place mooy. cours yi nga xamee ni mën nañ ko jaarale ci jaarale ci xalale yi mais ñoo ko di jaarale. les cours en présentiel. Euh, les cours en euh, euh, bi nga xam te ne boobu léegi ñu ngi koy wax. université système bimodal bi xam nga loolu recteur université bu Dakar moo xëy suba rek def ci benn waxtaan boo xam ne loolu également c'est un que du moom mooy. lan lan mooy problème moom mooy tëb moom du moom moom moom. génn wax ni a basculé dafa am université du du caaxaan dafa am ay. ay ay kak yi maanaam ay euh, mm, euh, ci ay piliers yu mu taxaw. piliers yooyu université du caaxaan d' accord nañ mais actuellement nii Sénégal dafa nekk ci ay difficulté di xool yan yoon lay jaar. pour xeex ak virus bi mais loolu la ñu d' accord ndey. voilà cest fi nga ko war a jaarale. yow bul tëb wax ko jaarale ko fi nga ko war a jaarale dafa am ay instance hmm. mille instance yooyu lan ngeen ci xalaat ñu wax la nga génn wax ko mais boo jiitoo parce que paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. paaka doo ko jiitu ci mbar boo ko jiitoo ci mbar ma dagg la. <laughs> d'accord donc da ngay da ngay da ngay ñi war a ñi war a nga xam ne ñoo war a décider wax leen ñu décider ba pare nga jël jotal jot. jot d'accord mais boo tëbee tëb rek ngay wax euh, man ni ma ni ma xamee université ni muy doxee loolu mooy problème bi gën a mën a indi problème. très bien cest jiitu ñu ñi ci seen. ci seen mën nañu mën nañu dem directement waaw mën nañu dem directement Fatou aborder. les questions les questions politiques parce que tamit lu ñu war a waxtaanee bari loolu te tuuti mooñ des. waaw mbiru mbiru couvre-feu bi yaa ngi koy tuddu sànq mais la loi promulguée bu ñu bu ñu ko waxee mu mel ne kon euh, yamul rek ci couvre-feu bi date bi mu waroon a jeex di juróom-ñetti fan yi mais 30 euh, jours lay dem renouvelable comme ni ñu ko tënkee ci loi état d'urgence état de siège. nan nga ko jàngatee yow. non non ñu li ñu comprendre ci bi mooy que ni. lu ñu comprendre ci loi bi mooy que ni euh, loi bi dafa jox président pour léegi muy décider. Mhm. Euh, euh, décréter couvre-feu wala lu ñu ko mën a woowee décréter couvre-feu sans passer par état d'urgence pendant un mois. waaw mhm. ah, dañu ko may waaye. promulgué ne ko annoncé nañ ko maintenant promulgation bi nag dañ ko war a publier euh, après publication la war a jaar phase boobu euh, journal officiel ba pare nag mu am benn délai de trois à cinq jours en tout cas mooy huit jours yooyu. Mhm. pour que finalement le président parce que dañu ne il faut que loi bu mën a doon rek sénégalais yi xam ko. Mhm. nul n'est censé ignorer la loi. mënoo publier rek bàyyi donc que sénégalais yi def connaissance en tout cas l'opinion am connaissance avec la loi ñu koy doog a ah loolu donc foofu la ñu toll donc euh, moo taxoon nga gis bruit hésitation bu garaaw sax bi amoon yu demee noonu parce que quand fi mu nekk nii période bi ñu ne nekk nii c'est illégal mhm. ah, ay gouverneur mën a tëb rek tënk mhm. sénégalais mhm. ah si loo xam ni kenn du génn kenn du def dara loolu loolu affaire bu garaw la te vraiment euh, recul démocratique bu garaaw la sax Sénégal parce que restriction des libertés bala nga si war a mën a yegg rek war nga ko càmbar bu baax pour mën ko def président Macky Sall lu mu am sañ lu mu amul sañ-sañ def ko gouverneur yi waruñu mën am sañ-sañ def ko parce que am na benn période de flottement une heure de temps avant que muy jeex le ministre de l'intérieur daal ne yokk nañ ko xanaa ñi génnoon daal di yaakaar dootul amati donc je crois que loolu mais léegi le président Macky Sall ça aussi c' est un autre acte très grave mhm. man def naa si benn entretien ak le professeur Soanka li mu wax c' est parce que Sénégal bu demee ba nga xam ni assemblée nationale dañ koy écarté léegi président gàddu lépp di def lu nga xam ni te restriction des libertés dafa grave mhm. ba nga xam ni léegi moom may nañ ko mu toog biir palais rek daal ne waaw Sénégal yi léegi bu kenn génnati man je mhm. crois que li ko joxoon dara nekk ci woon muy touché assemblée bu matee ñetti weer ah, mu demaat mu kii ko loolu ban lourdeur si donc je crois que loolu il faut savoir raison garder ñu delluwaat si loolu mhm. mais léegi nag li am mooy que c'est vrai si c'est encore le président Macky am na possibilité yokkaat un mois bu fekkee yokk nañ ko li mu mën a def nag mooy mu yokk ko si yeneen région mhm. mais xamoon nañ ni Dakar ak euh, Thiès mhm. bu ko yokk na ko si yokkaat mais li may wax rek moo ci am les Sénégalais dinañ tënku loolu à partir du avec quand un impact boo xam ne pour man non ay góorgóorlu lañu aujourd'hui xale yu bëri yu dëkkee boor yi wala di liggéey fii à partir de 16h dañuy dox ba buntu Pikine pour maanaam oto dem Kër Massar wala Mbaaw wala feneen. Mhm. c'est extrêmement grave. Mhm. c'est que loi mënul am impact tant que boole woo fi Sénégalais yi man je crois que c'est important que ñëpp xam nañ ni feebar bi garaaw na nañu jël de décisions mais feebar boo xam ne décisions yëpp day faagaagal Sénégalais yi wax naa leen ni l'économie est en vraiment de tomber à terre. moo tax ma yaakaar ni daal le président Macky Sall parce que les médecins yu koy wax dëgg la au niveau sanitaire nañu def li ñu war a def mais au niveau de la communauté également nañu xool. ñu bàyyi xel ci loolu alors euh, euh, amuñu occasion pour wax ci ak yow mbiru Boubacar Seye euh, mu nekk ci loxo yoon ci li nga xamante ne moom la def népp laaj boo xam ne jëm na ci koppar boo xam ne Union européenne dugal na ko ci réewu Sénégal jëm ci mbirum immigration clandestine mbir yi boobook léegi mel na ne lu xaw a tekkaaral yow ban lecture nga ci am. waaw ko téye. pour man jaarul yoon parce que quelqu'un boo xam ne la bon dénoncé na wax na li moo xalaat daal ne am na alal bu bëri boo xam ne dugg na ci Sénégal pour lutter te waxul nag ci nguuru Macky Sall rek. Mhm. ah je crois que depuis 2005. cinq ah, mhm. dugg na pour ñu lutter contre l'immigration clandestine maanaam li ñu woowee mbëkk mi mais loolu kay bu amee wax ko waxaat ko. bi ko waxee nag xam naa li jaxasee bopp gars yi mooy nee na Union européenne nag woo nañ ko yónnee nañ ko nag ay documents <laughs> je crois foofu daal moo xaw a jaxase yi mais loolu kay c'est facile à faire mais on est dans un pays avec des médias et tout ça qu'est-ce empêche au ministre wala en tout cas autorités yi day toog wax ak Sénégal yi xaalis boobu ah ñun de man de président Macky Sall 2012 laa ñëw waaye bu ma ñëwee ba léegi lii moo fi dugg voilà fi ko def mais c'est tellement facile mais yow fi mu ne non seulement sénégalais yi amuñu réponse ci li Boubacar wax bu waxul dëgg xamuñu bu waxee dëgg xamuñu mais en plus nga tilee ko dañ denc ko te moom in ne demandait que ñu xool fan la affaire dugg te xaalis bi nag Macky Sall rek en tout cas son gouvernement taxul ñuy wax parce que ONG yu bëri aussi dañ cee jël lu bëri du état rek il faut parce que yow bu fekkee ONG bi yow jox nañ la par exemple un milliard wala cinq cent millions un eh, bëkk bi yow euh, nga fay ko salaire euh, fay ko per diem wala jël ci transport ñoom aussi ils aussi responsables que l' état donc loolu je crois que il faut que nit ñi que aujourd'hui dañu a yem rek parce gis nañu la société civile quelques membres de la société civile gis nañu sax ay way politique ñu wax pétition pour exiger sa libération est ce que foofu la war a yem puisque depuis lors quand même mbir yi dafa taxaw wax naa ko sànq ah naa ay Alioune Tine ak tout pas ni ñu jógee di kii parce que ñoom li ñu xalaat mooy que ni lii kat début la boo xam ne si ñoom la jëm les lanceurs d' alerte xam nga depuis que Wikileaks am les lanceurs d' alerte moom dañu am baat kaddu euh, si monde bi léegi nit ki dee tëb mais ñoom même si c' est pas pareil dañ doon génne génnee euh, des trucs mënuñu leen a comparer ak parce que Wikileaks ñëpp xam nañ ni. Mhm. information yi ñu doon joxe c'était des informations brutes. yoo xam ni bokkul ak presse bi mais kii mi ngi siy liggéey di liggéeyal diaspora bi pendant des années. Mhm. bu waxee dara li ci am mooy que lool la. dañoo tiit nag président Macky Sall maanaam fii mu jëm li ma wax léegi muy restriction des libertés mhm. peut-être am na lu muy testé. Ah moo tax mu song société civile léegi. alors euh, sànq yaa ngi wax ci loi d'habilitation bi dafa mel ni Covid bi dafa yëngal sax euh, parti politique yi yëngal acteurs politiques yi parce que gis nañ loi d'habilitation boobu na coow ci député yi surtout les députés de l'opposition nga xam ne Serigne Bara Dolly Mbacké waxoon na ni dina def euh, ab euh, loo xam ni dañ ko yóbbu ci assemblée ba ngir ñu daal di juutal loolu nga xamante ne ni président Macky Sall def na ko waaye liñ ci mujjee gis tey ji mooy ay scission ci ay mouvement yoo xamante ne dañoo boole woon seen bopp pour defante assemblée Macky Sall affaiblir na ko ñoom aussi ñu nangu ko xam nga république moom bu fekkee justice bi ñu ngi wax ni ni mu war a doxee doxu ko ñuy wax ni le pouvoir législatif assemblée doxul ni mu war a doxee mhm. mais ñun kon fu ñu jëm tout est entre les mains de nga xam ni amatul sax premier ministre donc entre les mains du président de la République loolu aussi jar jar na tiit. d' ci session ci euh, session ñoo lànk bi nga xam te ne dañu xëy tey lire ko ci ah. yenn kaay yi. Ah. ak waa PDS tamit riposte bi ñu riposte parce que tey jii ñenn ñi ñoom jàpp nañu ni PDS moo tax loi d' habilitation boobu noonu ba tey jii ni ñu jëmal ko. effectivement man li ma la mën a wax mooy que ni am na recomposition boo xam ni am na en cours. Mmh. autant si société civile autant si langue politique bi. parce que PDS aussi également xam nañu ba léegi superpuissance bi mu bëgg a imposer au niveau de l' assemblée nationale parce que moo gën a représentatif peut que moo koy may li muy may mais ñoom opposition xamuñu fi mu nekk nii kan moo féete camp opposition xamuñu kan moo féete camp. kon ñoom dañuy jiñante seen biir ku nekk yaa ngi jege président Macky Sall wala nu mu fa demee. non président Macky gis nga vague bi ko topp. aujourd'hui actuellement ñoo koy fekkiwaat. Mm-hmm. te président Macky Sall nag on lan moo tax vague de transhumance boobu mu mu téye si mu jaral ko ni mhm. parce que boo demee yow ba assemblée nationale nga xam ni quelques députés ñaata sept xaw ma yoo xam ni mën nañu voté sax pour nga am problème ay députés yoo xam ni déposé nañu pour vote de loi c'est un problème pour contester mhm. loolu la bëgg léegi aujourd'hui nag sax maanaam tënk na leen ñoom seen biir jubawuñu mm-hmm. tënk na leen si loo xam ne amatuñu benn pouvoir léegi mu ngi dawal yoonam nekkatul si dara te je crois que loolu nag moom Mohamed je mm-hmm. crois que c'est le c'est au président Macky Sall de se dire que lii je que c'est pas comme ça qu'on gouverne un pays te na gën defar recul mm-hmm. ñi ko fi jiitu woon loo xam ne ñemewuñu koo def je crois que moom aussi il n'est pas question alors euh, xam naa li ñu desee euh, bariwul daañu euh, aborder ci kanam professeur seen wàllu revendication mais balaa boobu l'épisode jaari sow jaar na fi ak lépp lépp lu fi xew euh, gis nañu ne euh, kàddu yu bëri waroon na ci xale bi lan moo ko jot lu tax mu dem quand jaari euh, Diary Sow ne plus n'importe qui ci bu ñu xamee ne nekkoon na ñaari yoon maire élève bu Sénégal alors yéen seen seen taxawaay wala peut-être seen gis-gis par rapport ak épisode bi fi jot a jaaruwum yooyu ci mbirum Diary Sow lan lay doon waaw Mohamed problème mu Diary au-delà de la personne de jaar yi parce que jaar yi nit la rek koo xam ne ni xale la bu do bu nekk ci njàng am lu ko yàlla may ci njàng bon mu génn bitim réew am lu ci xew mais loolu amul am na solo mais am na lu ko ëpp solo li ko ëpp solo lan la mooy la souveraineté dans notre système éducatif tout à fait loolu moo ëpp solo c'est-à-dire que tey jii war nañu fexe ba ñun suñu biir réew ñu mettre en place un dispositif boo xam ne dina permettre ñun suñuy élèves yi gën a baax duñ leen bàyyeetu ñuy dem bitim réew. parce que boo xoolee ñi nga xamee ni Sénégal dañoo maanaam dañu am ci ñoom yaakaar ñu génn bitim réew ñaata ñoo ci dellu si parce que ku ci dem jàngi lan ngay def. tu dans des grandes écoles d'ingénieurs nga pare boo ñëwee Sénégal bu fekkee ne le dispositif industriel amu fi loo fi wut si waat. donc da ngay obligé toog ci réew mi la mayoon bourse nga continuer yéen di leen liggéeyal. donc au détriment de ton propre pays. loolu nag li muy li mu jur li mu maanaam li mu ñu war a jur jàngat mooy benn il faut que ñu repenser ñun suñu système éducatif. suñu système éducatif ni ñu koy repenser ak suñu système universel ni ñu koy repenser mooy lan mooy lan lañu bëgg ban type de de de jàngale lañu bëgg ci suñu réew. Mm-hmm. ensuite le dispositif bi nga xamee ni moo war a accompagner loolu en termes d'équipement et d'infrastructure Euh, ci biir université yi parce que infrastructure mooy lan mooy booy jàngalee dafa am ay euh, maanaam ay nekkuwaay yoo xam fa la ñuy jàngale mais nekkuwaay yooyu du bâtiment kese. d'accord dafa am leneen lu muy àndal. maanaam muy ay matériel parce que bu fekkee da nga bëgg viser benn compétence mais compétence boobu ngay viser. il faut que mu am matériel boo xam ne dafa méngoo ak compétence boobu ngay visé. justement yaa ngi wax euh, matériel situation recherche bi fan la toll ci jamono joo xamante ne nii dëkk yi yëpp di koy wër mbirum vaccin Covid bi. gis nga da nga malheureusement dañu laal benn point boo xamee ni man mooy daanaka mooy mooy li may yëngal. parce que muy non muy recherche. parce que recherche vaccin benn benn aspect rek ci gëstu. Mhm. xam nga dañu rekk ci àddina boo xamee ni tey jii tey. li koy doxal mooy xam-xam. Mm-hmm. xam-xam di yeneen bi di wax dem leen wuti ko. même bu fekkee ne da wuti ba siiw. Mm-hmm. donc dafa am moom borom basiira la. Mm-hmm. yaa fa am lu ko yàlla wan. loo xam ne wanu ko wanuñu ko ñun. muy borom mu xaybu. di borom basiira. loolu mu amee xaybu nag ba xam lu nëbb. loolu la xamee woon ni jamono dina dikk. ci àddina soo amul xam-xam. yow yaay jël ndaare. te jamono jooju lañ toll. moo tax réew boo xam ne bëgg nga moom sa bopp. ni man mii dama bëgg parce que gis nga àddina bi nekkatuñu ci geeru ay dóorante ay bal. dañu nekk ci geeru maintenant. tout à fait sur le plan purement scientifique. nan la ñuy def bu ku nekk nga moom sa sa nga moom alors justement euh, dañuy déglu des fois que ni am na ay production yu bëri yu chercheurs yi di def euh, ci université mais malheureusement dañ koy ranger ci tiroir yi lan moo xew. dëgg dëgg la dëgg la dëgg wér nga wax. damay jël rek université Dakar exemple université Dakar tollu nañu ci at mu nekk maanaam juróomi at yu nekk dinañu génnee lu tolloog juróom-ñaar juróom-ñaari junni publication sept mille publications par cinq ans soo ko rapporté à peu près sept à huit mille publications par cinq ans te c'est sous-estimé mais boo ko rapporté ci par année day tollook équivalent wu mille cent publications par an ça que chaque année université Dakar dana génne lu ma junni ak ñetti téeméeri publication mais loolu fu mu dugg. lépp ngi ci biir ñu day alors Babacar dañ ko dul jëmmal parce que dafa am dafa am ñaari yëf moo am xam nga yow mii gëstukat. Mhm. yow gëstu nga am pour def ko. d'accord dafa am à côté. Mhm. ay ñoo xamee ñoom seen lool mooy li nga gëstu ba génnee ko. ñoom nan la ñuy def ba jëmmal ko. ba pare maanaam bëggoon nañoo gën a wéyal xanaa kay temps bi moom moo ko matewul donc ñu dem ci Babacar. Euh, gis nañu mbirum coowal suuf gis ko barki démb fa nga xamante ne moom mooy euh, mbuur kaat ak li fa am euh, muy askan woo xamante ne dañu ñëw daal di dajji li nga xam ne daaneel mooy seen i ay kër ñu bari jàpp nag ne ñoom it seen responsabilité mën naa nekk ci biir li ko waral moom mooy ñu ci bari amuñu kayit. Hmm. te it guddi sax la ñu doon tabax mbir yi boo ko dee jàngat lan nga ci wax. litige foncier moom Sénégal boo xoolee toujours c' est le c' est le même problème. virgule xam nga yaa ngi dégg ni aéroport bi euh, joxe nañu ordre pour euh, mais nañu xool ñan ñoo koy jënd. Mhm. c' est que euh, je veux dire xam nga bu fekkee Sénégalais yi aussi ki néew di doole bi amatul possibilité am lu ko neex booy finalement parfois muy jalgati loi. Mhm. pour mën a am dëkkuwaay fu mu mën a dëkk. surtout que nag li gën a garaaw mooy ndey Fatou Abdou mooy nga nekk fa tabax ba mu toll fenn fi ñuy doog a ça veut dire que contrôle bi des na lu bëree bëri bëri bëri parce que nit ki war a mën a contrôler te maa ngi dégg ñu ne foofu ñuy wax ni euh, place comment on appelle forêt classée la war mais dafa am électrification euh, poto yaa nga fa yaa nga fa lotissé nañ ko euh, daal <laughs> ça veut dire que kay ña fa nekk te c'est bi ñu seetloon ay kër Massara ah. mhm. dañ naan la yéen jóge fii mais ñeneen a ngi préparé pour dëkk mhm. ça veut loolu nag mooy mooy problème bi c'est que suuf Fatou bëri boo xamee ni fi mu nekk parce que quelques mètres yoo si am rek wala hectares yoo si am rek tu deviens milliardaire. Mm-hmm. de telle sorte que loolu dafa indi ñëpp ñi nga xam ne borom doole yi dañ fa nekk. l'état nag li ko war a mooy moo yore moo moo njaaxaanaayu ñëpp. tout à fait ba nga xam ne ñu bàyyi néew doole yi leen néewal doole ba nga xam ne fu ñu dëkk am problème. ñu ngi wax affaire cent mille ñu ngi wax lépp mais je crois que aujourd'hui l'état dafa war a gën a protéger ses citoyens mm-hmm. surtout ñi nga xam ne amuñu doole mais lan mooy problème bu ñu jegee déggee DSCOS ay direction yoo xamante ne ndax dañoo amul matuwaay des outils yu war a mën a tax ñu contrôler comme seen rôle euh, pour def un travail en amont avant de le faire peut-être en aval bon dina am problème boo xam ni xam nga président Macky Sall muy Doudou Ndoye après Souran euh, yàlla na yàlla ñu xale ko àjjana mm-hmm. ñu def rapport mm-hmm. jox ko ko ba léegi yëngatu si mm-hmm. te loolu sa permettait vraiment de régler peut-être problème mu foncier au Sénégal loolu c'est un fait mais président dégg guñ si mu wax si te rapport bi teg nañ ko si loxoom yàgg na. Mm-hmm. de deux également day am souvent ay problèmes entre collectivité territoriales yi mm-hmm. ak état bi si kaw. tout dégg li amoon ay jàpp naa ban ñi nga mm-hmm. ñu ne non maire yi day joxe noo ñële yëguñu donc finalement papier yi ngay am sax yow c' est un wala benn nit jaayandoo la nag laa nag c' est les responsabilités individuelles. benn nit jaayandoo dix fois benn terrain ay nit finalement yooyu aussi. d' accord dañuy faral di wax des fois. rapidement waxtu bi ci li muy wax nii. dafa xam ne am solo la. gis nga vingt unième siècle. Mhm. jàpp vingt deuxième mhm. am na ñaari problème yoo xam ne moo nar a lëmbee àdduna. Mhm. te li ko nar lëmbee dëgg dëgg dëgg dëgg mbirum sécurité alimentaire ci la bokk. ak mbirum ndox. ak suuf. tout à fait. mooy ñett ñi dans le vingt unième jëm vingt deuxième siècle. jëm parce sécurité alimentaire dafa ànd dafa lëkkaloo ak problème suuf. ak problème ndox. la gestion de l'eau l'eau potable. l'accès à l'eau potable. c'est un véritable problème dans le vingt et deuxième siècle la la la gestion de la terre. parce que dañu nekk ci àddina boo xamee ni surface globe bi du yokk. d'accord day wàññeeku. Mhm. parce que dafa am ay phénomènes. naturel muy ay tsunami ay euh, yu bare ba pare nga am une population yoo xam ne dafay galoper de façon exponentielle te mm-hmm. les terres cultivables day gën a wàññeeku loolu moo tax may wax toujours sama étudiants yi ne leen di leen wax seen waa dëkk yi ne leen suuf kenn du ko jaay d' accord suuf kër nga dimbali régi nag régi ñu ngi may ñu ngi may taw très rapidement rek ñu euh, daanal ko waaw. Babacar euh, la loi dure mais c' est loolu la ñuy faral di dégg. mais nan lañ mën a comprendre président Macky Sall wax ni en période de Covid bu ñu génn kenn ci jamono joo xamante ne ñu ngi toj ay kër. waaw waaye ça c' un fait ñu daanale foofu moo ko waxoon moo mm. ko waxoon c' est un problème loolu aussi ñu ngi xaar mu indi solution. Mm. te xam nga après fu muy mujjee ñu jox leen feneen. ñooñu jox leen feneen après maanaam suul bukki sulli bukki. Mhm. je crois que il y a jamais fuite en avant la ñu nekk nii yow euh, euh, Ndeye Diagne. Mhm. fuite en avant boobu nag moo tax les problèmes ne seront jamais réglés. parce que mhm. euh, boo suul rek. sulli nga feneen. <laughs> il est temps ñu taxaw daal di régler définitivement. très bu baax a <laughs> bi saa ñu la rek ah aborder actualité nga nangul ñu ko ñu di la gërëm bu baax a baax ñuy fàttali ne journaliste nga analyste politique également ci wetam Euh, Sall. Fall plutôt euh, <laughs> Fallen bi donc yow itam ñu sant nañ la bu baax a baax ci dëkk bi euh, ñuy fàttali ne également yow yaay secrétaire général bu SAES c'est ça. voilà merci beaucoup di gërëm bu baax a baax soxna yi Ndeye Dimet Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye mbokk yi jox leen di di day incha allah ëllëg ci beneen jotaayu ak seen show ak yeneen gan jaa ngeen jëf.